Bonjour chers téléspectateurs, on se retrouve dans votre émission Backstage pour parler théâtre avec la troupe Soleil Levant qui pour la deuxième année consécutive a assaini le Grand Théâtre pour présenter un spectacle inédit, le baptême du siècle. Un spectacle dont vous allez découvrir les secrets de préparation, l'écriture du scénario, les répétitions. Dans cette émission, vous allez aussi voir des artistes autres que ceux de la troupe Soleil Levant. Mais tout de suite, nous allons vous la dernière répétition du baptême du avec les boissons Coca-Cola. sumbulu mi ba mu juddoo. géeral ñu ko tudd. doom jee juddu fii mënuñu koo tudd te safaan yi teewul. boobu technologie bi avancé wu de. lan technologie bi daa avancé. xewu fi de yow loo xam si technologie. Ah? loo xam si technologie. Ah, dégg naa président de la République def na waay ba. waay ba da nga am bëri. <laughs> am nga Twitter. Eh, whatsapp am nga ko whatsapp. sax am naa. ci martokat bu rëy nga ñu. am naa am naa waaw waaw léegi nag da ngay dem. Ah. nga bàyyi fi seen numéro whatsapp. waaw après dinañ la whatsapp. bu bu gee jotee. waaw gee dinañ la woo nga ñëw. nga ah, ah. ñëw waaw. ah. ah. maanaam. kii xanaa daal. dëgg mu sa wéy et ses acolytes ont présenté Yom Al-Khiyam au Grand Théâtre et ont réalisé ainsi une révolution. Et depuis lors, le public attend avec impatience leur deuxième représentation. Avant cette représentation, nous allons vous parler du scénario, des secrets de répétition, mais aussi toute la préparation autour du baptême du siècle. Regardez. Euh, boo xoolee soleil levant dafa nekk benn ensemble c'est vrai que dafa nekk ensemble boo xam ne ñoom ñooy bokk mais boo loo gis rek dafa am cerveau euh, parce que alaaji góor ñuy wax Aziz euh, mooy toujours boo ko xoolee mooy le scénariste luy soleil levant jàllale ci pièce de théâtre moom mooy ki koy bind mais boo gisee rek lu mu bind tamit da koy yaatal di ci laaj nit ñi seen xel ak seen xalaat parce que boo xoolee Sanekh da ciy participer se maam Seexu Cheikh Ndiaye da ciy participer même ñun dañuy toggul ba si yàgg ñu wax ñu ah léegi lii lu ngeen ci xalaat euh, maxasay tey jii boo xoolee mooy le metteur en scène de le spectacle euh, te te te na ci benn touche boo xam ne bu am importance la moo tax boo euh, boo xoolee Aziz en quelque sorte nekk na koo xam ne wax dëgg yàlla ñun dañ koy ñaanal gudd fan ak wër ndax nekk na nit koo xam ne xelam dafa màcc ci scénario te da koy teg ci yoon. suñu dof dina jàpp ko bay livré boppam kii. dama xalaate nga xalaat dama lay wax rek. ou da koo drogué mu nelaw mu àgg ci kawam. wala yëf ay dóor la. ndax kéem ni mu toll fu ah ah ah ah ah waaw xam nga toujours li may wax rek soleil levant moom day jële ci nit ñi delloo ci nit ñi parce que kenn ku nekk képp kuy sénégalais mës nga teew ngénte am lu la fa marqué loo xamante ne ni lu reetaanlu la wala loo xamante ne nii leçon boo fa jële la donc te liggéey collectif la dañoo baax rek naan maa ko bind donc lu ñu dajale la ku nekk indi sa idée ñu jal ko ne kat lii sénégalais yi ñoo ko jëf donc buñ ko liggéeyee xool li ci baax ñoo leen lii baax na lii bon na ñu delloo leen ko là mën na mën na jur dara vraiment. xaw ma nag euh, vraiment ñaata jour lañu répété parce que mooy loolu de toute façon daal gars yaa ngi ci kawam nekk ci kawam nekk ci kawam ba mooy loolu aussi tamit dañ doon guddee trop. waaw mooy loolu nekk na lu ñu gën a sonal su boo bëggee def loo xam ne nii euh, nekkatul soleil levant dafa nekk le monde entier euh, ñëpp dañ lay seetaan euh, ñëpp dañ lay bëgg a gis kon dañuy nekk parfois di répéter ba deux heures trois heures comme démb démb filage bi ñu doon def presque trois heures trente lañ pare est-ce que doo am sax temps de récupération mais ñun population bi jaral nañu ko. képp kuy sénégalais aussi caral nañu ko waaw moo tax aussi tamit bon lu mu metti metti metti tamit bon ñun ñoo ko choisir aussi dañuy dem à fond. am na ñu du siècle nag ngénte la. ngénte la mais lépp lu ngénte di def dafa contraire ak li ngénte di def doom ji ni muy juddoo day contraire nii ngénte si dañuy contraire ak li ñuy def lépp daal dañ koo dëpp ci ngénte moo tax ñu tuddee ko le baptême du siècle Pour ce backstage, nous avons suivi ceux qui ont instauré du Le premier jour, c'était les répétitions, mais le jour J, nous sommes venus à cet pour voir la préparation des artistes dans les mais aussi et surtout leur laylani nginteli nginteli Moustapha doomu daaw ñaar de xar mi mu tëdd teg pàkk ci put bi rëdd wax bisimila ba ñu midi waaw waaw waaw nga bàyyi ba waaw. ma ngay <laughs> biso <laughs> la dañ koy jël naturellement rek sans pression parce que nag vraiment nag sénégalais liñ leen wax liñ warloo ak ñoom def nañ ko. teel nañoo ñëw fees fi del boo gisee buuxante bi kii nga xam ne bëgg rek am solo waaye liggéey tamit am na ci solo kon nag mm, mm, li ma wax rek bal tàq na ñun ñoo ci des fi mu nii. le baptême du siècle dans quelques minutes nga comprendre lépp li ëmb le baptême du siècle xam nga boo nee le baptême du rek lu ne na ci biir. waaw lu ne na ci biir mais rek dina doon spectacle bu doy waa waaw comme ni ñu defoon daaw rek tey jii ñi nga xamante ne dañu dooleeku ci public bi ñëwoon daaw moo lay won ne daaw def nañ spectacle bu bu ko jar ren tamit spectacle bi ñuy def nii pour déwén nii. barke yow mal xeer. dëj nañu bunt yëpp bunt yëpp jël. tailleur tailleur bu mag baa ngi nii. yii kan jàll bu couleur. waxal moom lu ma sañse tey moo ma ko solal. kan jàll bu couleur. ñàkk ki ñaan di ñaw di jënd tissu yu cher lay ñaw. barke yàlla ci yaay wut na yàlla ay dóor la ay dóor la ay dóor la ay du ay dóor. je vous dis quelque chose je connais ce qui est doux plus que vous <laughs> la neex. ça va de quelqu'un c'est juste que euh, bi dafa fees ba ëpp ñu nekk ci biti ñoo ëpp ñu nekk ci biir du dëgg donc am na ñu nga xam ni bu ñëwee ba fii amuñu accès ci salle bi te suñuy nit lañu ñu xam leen dañuy préférer sax ne leen ibbi leen leen ñu dugg ñu ñëw sax ñu suñuy vestiaire ñun toog foofu moo gën ñuy taxaw ci mbedd bi moo waral ma ne ibbi leen ñenn ñu lañ dugg sax même bu dee ci hall bi la ñu nekk sax. bu ñu amul accès ci saal bi tamit sant yàlla la sant yàlla nañ ñëw sax ci ñun toog ak ñun mais nañ xam ne au moins que ni côtoyé nañu artistes yi jël ay photo et tout doo ko delluwaat comme xajuñ ci saal bi. lépp la la naqari songal kii tey dañ lay wan ni réewoo nga sangandaay ngay mel ni balu fëgg jaay. tey tey lay noq ba nga xam. dama leen di jéggalu di wax rek ne rek euh, ñu jënd billet te amuñu place bu ñu dugg ñu ngi leen di massawu. tey ji bu ñu mënoon a yokk grand théâtre def ko 5000 places ñëpp dugg donc vraiment dinañ ko def mais nag par mesure de sécurité la sapeur pompier tëjee bunt bi ñu ñu respecté seen décision di ñaan yàlla euh, beneen yoon ñu def ko fu gën a yaatu euh, pourquoi pas Zénith waaw parce que euh, Sénégal Soleil Levant moom innovation lay demee quoi. ah xamoo li ma la wax. yow billaay xamoo ku ma xam. nu ma lay xamee du yow yaa ngi soog a ñëw. ku ma xam rek jege ellaay boo ma xamoon ci man. lu man mii. waaw li ci gën a soxal gën cee neex mooy ñun nañu bëgg rek nañu gis nit ñi gis ñu jouer en live nañ ko def parce que lii ñu ko décidé woon mooy dem suñu koñ chaque année defaat entre cent franc cinquante franc même bu ko jaree.

émission backstage backstage backstage backstage yow mii mbaa saagaloo woo ma non émission backstage on est très content de votre présence Serigne ngi mooy seen président ba borom mercredi ngi borom pupp ñu Modou Faye wax leen nag Bouba Ndour mooy wax ak yéen xam nga xam nga Bouba Ndour damaa bëgg mu xam ne lu waaye doon xool sax xam-xam li ko gësatoo ko ndax la doon xool ceewa dem waaye la ngay xool bougé wu. jéggal li xam nga Thiès gaa nee naa leen benn dëkk ñaari gaar Carrefour yu Sénégal bi nga xam ne kuy sukk foofu ngay jaar faral lépp bësee Thiès. yaa ngi may dégg. te tey jii sooy levant li ñu def lii ñoom defuñu ko pour sooy levant defuñu ko pour pour Thiès dañ ko def pour Sénégal ndax lii Sénégal sax fayu ko. ñu ñàkk ki ñaan nag xam nga jël affaire bi woo seen ay nawle woo seen ay xarit woo nag ndaanaan bu nekk biir Sénégal ñu woo la kon bu bëndoo damaa bëgg initiative yu mel nii ngeen koy ngeen koy gën a xam naa ne nag lekku leen naanu leen wooru leen dem leen bay géex ndax liggéey rek ngeen def macha allah TFM ca kaw number one peace and love gawloo waaye bay dem ba fees na nag <laughs> man taaw laa ma unkalum jëm bu toll man nga ah, naa ma taaw. kii gànc la. léegi nii toog gànc gis nga ko mu defaru ba kii nii te kër ngi fii ci kii moom dem na màkka ñaari yoon. kii dem na màkka ñaari yoon. fii la dem tournage Mbour mu ne nañ ko almini ndax day dem kii Karaway. Ah. maa wax lii. Euh, euh, kii. Ndeye Kumba. Ndeye Kumba dem na Màkka ñaari ñaari yoon. mais gars ñi ñoo yaakaar ne dafa aji mais dafa tuuti. ah borom Màkka ngi nii tukki Màkka ñaari yoon. ba mu ñëwee nag gars yi dañoo dafa aji woon waaye man tukki laa ko jàppee maa ko mujj Màkka. Ah, Papa Ndiaye mii. maa ko mujj Màkka maa ngi nii. ah mun na gii. maa mun na weesu. ci ci ju metti ji laa. ci mun na weesu. maa ngi nii jël mun na ji wees boo gisee li mu toll xam ni war na caa mën a génn daa buuxante ba génn moo tax mu raw dégg naa nag ci kaw gaañi la daan yëg am na ñoo xam ne sax deewuñu woon waaye ba ma yéegee seen kaw ci lañu ñu faat. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. bàyyi kii géwélu toog. Ah, waaw yow. toog Euh, bu dee bu njëlee. baaw jëme kaay. kii. Ah. nee na lu mooy bàyyi doom kii ma bëgg naa ko si lan. dooma ñaanal jàmm. moom ndekete wéro xam nga wérule. Eh, eh. yow mi mel ah? laaj. Ah, ah so man man lay interprète euh, rôle gambien bi jógee Gambia ànd suma délégation bi ñëw fii pour lifin ko moom laa day àgg ci kaw ci kanam tuuti some time nii rek dañ ko dee liggéey léegi. Pour rendre ce baptême crédible, la troupe Soleil Levant a fait appel à plusieurs autres personnes, dont des artistes comme Viviane, Carludi, Titi, Fallujah, Gorguindiaï, entre autres, à des lutteurs, Balagay, Modelo, Eumesen ou encore à des personnes qu'on ne connaissait pas dans le théâtre comme Mami ou Abba. On va les voir tout de suite dans cette émission de Backstage pour qu'ils nous parlent de leur participation dans ce baptême du siècle avec la troupe Soleil Levant. calen la yeew samay mayaat ne bés bi mënuma ci bañ a dellusi ànd ak soleil levant théâtre accueil accueillir euh, maanaam accueillir théâtre dama koy wax théâtre tey jii ñoom ñi ngi fi gis nga guichet fermé la ñu def. dëgg euh, tey nan nga gisee seen liggéey biir Sénégal soleil levant. waaw di kontaan si ñoom nag di kontaan ci invitation bi. Mhm. donte feccikat yi bari na sax. Mhm. mais dañ maa woo téléphone. Mhm. fekk ñu moo fi sax fekk mu tukki. ñu dem ba woo sama jabar. loolu mu doon loo xam ne dafa rëy ci man. laa ma ñëw ñu wax ma dañ bëggoon ma ma participer ci seen affaire mm-hmm. balaa dara sax ñoom dañu doon référence ci lépp mm-hmm. ndax lépp lu ñu tey fii bu feesee dañ ko ñefe ba yegg ci fii ñoo jàppale seen bopp mm-hmm. wane seen talent ak seen kattan seen mën-mën force seen bopp ba yegg ci fii moo tax ñii waxuma la grand théâtre rek waaye nee naa la bu ñu woote woon Bercy sax man sama xel daal wax dëgg yàlla ñi ñëwoo ñu ñëw ci affaire bi méngoo nañu ñun déggoo nañu ñun Soulèvent mi ngi nii rek de waaw ku compétent ku ne ñëwal bokk ngénte lii ngénte dafa laaj xumb-xumb te équipe Soulèvent rek mënul ngénte kon boo bëggee jox pënc ngénte li laaj na nga woo nit ñu bari ñu ñëw toog te ngénte laaj na ay woykat laaj na ay tàggkat laaj na ñëpp moo tax macha allah ñu dugal ci rek ku ci bëgg a bokk rek. yow eh. non non non non waaw. sama loos bi nii la. ko joor ak joor tànn nag liggéeyal. ginnaaw laa jëm. non. maman. Eh, eh, eh. man bisu ñi ma xam dëggantaan xam nañ ne heure bi fekk na ma sama kaw kawlal ma tëdd <laughs> di seetaan télé waaye xam nga baatu maa la bëgg boo gis bu nekk maa la yëg moo koy fay soleil levant dama bokk ak ñoom GFM ndax euh, ku nekk xam na ñoom li ñu fa féete lépp donc nag suñu demee ba ne dañ ma sentir dañ ma yëg ci seen biir ngénte bii nga xamante ne moom bu ñu ngéntee ba pare ku ngénteeti ku nekk faaw nga laaj leen autorisation man mënuma lu ñëw fekk si leen ñëw wuy si leen loolu rek mooy samay tànk loolu ma yëkkati bijou léegi Euh, sur scène li ma war a def bari na li ma war a def bari na parce que xam nga ne ngénte ndey ak baay waaye bàjjan xorom la ca may bàjjanu liir bi. Mhm. non day gën a yomb parce que tey comme pièce bi ñu joué tey dina am benn moment xam ne artistes comédiens yi dañuy dem ñu dallu euh, les danseurs def leur leur démonstration donc pour équilibrer ak gars yi nooy tuuti bokk na et puis les arts ça complète bi joue parce que xool fecckat bi buy def clip day def mise en scène mise en scène c'est les comédiens comédien bi buy def pièce si biir pièce am dañuy gis ni euh, day dugal musique. donc ñaar yooyu aussi nit ñi dinañ ko jàng euh, ku am lecture daal xool pièce bi di nga ci jëlee lu doy waar daal. waaw seen liggéey di ko rafetlu rek. Mhm. Soleil Levant moom Soleil Levant Sénégal la Soleil Levant àdduna la puisque ñu ngi bëggal àdduna yëpp daal xam nga kon c'est normal bis bi ñu teew quoi. kontaan nañu bu baax baax ñoo gën a. Mustafa lu si spécial te gën maa marqué te soleil levant def ko ne woon naa sax damay bàyyi ba spectacle bi jeex parce que boo xoolee dafa benn medley bu ñu ci def euh, ay Diop Fall ay Aline Mbaye dina ma neex ah, ak booy Mbour yi Saliou ñu soleil levant dugal leen seen biir donc loolu parce que mbër mu mag day may mbër mu ndaw chance am bëreeg moom donc bu fekkee tey woo nañ leen uuf leen ànd ak ñoom c' est pour wàll leen à l' avenir grand théâtre bi yéen seen loxo lay nekk donc njàngal boobu tamit bokk na li tax ñu ubbi pièce bi ci ci baptême bi nga xamante ne nii ñu ngi koy waaj a def léegi. solo wuñu. ah la juste que maa ngi leen di bousculer pour ñu gaaw dem dem dem parce que jot na ndax ñi fi nekk ni tey ñu teew fi ñu bari tey yàlla dogal na Soleil Levant leen indi yàlla dogal na gis ay saa neex alaaji góor ñoom mbay doose Modou pousse pousse ñoo leen fi andi certes bi su artiste yëpp la waaye nag particulièrement artiste soleil levant donc public bi neex na nag ndax musicien yaa ngi fa ngi fay tooj mbër yaa ngi fay tooj saal baa ngi yëngu hmm, vraiment waaye nag public bi ak ay mag te dafa am dafa tax dañoo taxaw donc ñu ngi commencé impatienté wu di réclamer soleil levant moo tax mën a gars yi lépp lu ñu nañ ko bàyyi et puis nañu wàññi playback yi et tout dem def spectacle bi yaa Baaba Jéeme dira daa mi si Konankri xaw ma ci Baja xaw ma ma ca Konankri fii bii ngay ñëw yow li la fi andi defoo ko. maanaam xoolal kër gi ni mu mel. yow mbalit mais doo ci sotti pétrole taal eh, boo koy taal may taal tey. Eh. boo boo eh, taal. eh yëngu na de eh eh eh eh ka jaar. kay taal. xam nga ngénte ndey baay. waaw waaye bàjjen xorom la ca. ñun ñooy bàjjen yi. ndakaaru doo fi xàmmee un ak zéro spectacle bi defoon nañ ko daaw fekkewaat déwén amoon nañ ci yaakaar mais sut na suñu njort parce que ku gis lu nekk fii xam ne franchement àdduna ñoo ñu bëgg Bijou doo xam sax looy wax affaire bi dafa jéggi dayoo hmm, xanaa ñu dolli di leen ñaanal ñoom parce que vraiment sës nañ ñu ñaax nañ ñu ñoom tamit ñu dolli di ñu ñaanal parce que toll nañu stade boo xam ne nous n'avons plus droit à l'erreur di ñaan yàlla mayaat ñu inspiration bu sut bi ñu yoroon ba ñu jox leen lu leen satisfaire franchement ndax sas la li ne fii moom man dañuy ñaan rek dugg ci bisimilah yeggale ko alhamdulilah. doomu nijaay di di la bakk naa la mbokkum yaay mburi bàccili chéri Balla leen ah Soumboulou yegsi na na ren dama demoon joué ci benn film cinéma bu ñuy wax euh, Bois benn bu Jacques de Buisson bind benn sama benn papa bu ñuy wax Moussa Touré réaliser ko muy film international buy daw France 2 ñu gis ni gis nga film boobu ma amoon ci ay contact ak Jamel de Debbouze parce que daf ci am acteur cinéma yu ci ñëwoon yoo xam ne ay xaritam lañu bi ñu bi ñu waxee ma moom bi ma ko yëgalee affaire bi il était très content euh, ñu waxante ni ñu espérer ñun ñaar ni dañu mës a daje ci plateau cinéma euh, Omar aussi Omar Sy am na benn film bu may waaj a joué boo xam ne dafay tudd. incha allah comment l'islam est entré en Afrique maa moom ñu am ci ay séquences ñu ñëpp ba ma leen waxee affaire bi déwén nag jàmm ñu ngi xalaat incha allahu rabbi woo ñoom Govou woo ñoom Siliki Souké woo waa Burkina Faso yi woo ñoom Jamel hmm? ñu Soleil Levant déplacé leen indi leen incha allah fii ci seenu grand théâtre bi ah, bokk ak ñoom ñun di nga gis ni sax dinañ dem ba nga xam ni dañuy jouer ay trente minutes wala ay one man show la ñuy def wàcc

nañ ko bala may sa tuddee nañ ko faramaareen bu mag bi waali balaa ko seet Voilà, c'était le backstage consacré au baptême du siècle de la troupe Soleil Levant avec les boissons Coca-Cola. Comme vous avez pu le voir au cours de cette émission, la troupe Soleil Levant se prépare déjà pour le spectacle de l'année prochaine qu'on a hâte de voir. Merci à vous de nous avoir suivis. à l'équipe de production. Aujourd'hui, c'était Pape Cheikh Diallo à la réalisation, Gorgui Thiam alias Bogos à la caméra, Alou au montage et Boubandour à la production. Et merci à Fatou à Sophia, Madame Baquet pour la coiffure. À la semaine prochaine dans un autre numéro de Backstage avec d'autres surprises. Au revoir.